إلا الله لا إله إلا الله يا فائلا لما يشاء ومحطيا لما يشاء يا الله آه لما يشاء ومانيا لما يشاء عبك لا يشاح إلا الذي عن الشاع ومن أنا حتى عشا خلاف ما الله يشاء كن الله خلاف ما الله يشاء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 mama ko yàlla muy buur la ilaha illallah dëkke mooy ba dem di nga xaar yàlla mi borom nguur la ilaha illallah yaay borom yërmande laa ilaaha illallah allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah moytu leen yu xew tak jamono toj na ñëpp a ngi fo fàtte yàlla mi buur laa ilaaha illallah Dakar da duli di Qur'an la ilaha illa la Ada aku dem bañ déet doo wax lu baax doo ko jëf di woote إلا لا لا maa ngi door di waxtaan kuy soppe ma xarit jege sil ma bàkk yàlla mi buur laa ilaha illallah jaamu ko bala ñëw ku dëkke mooy ba dem di nga xam yàlla mi borom nguur laa ilaa illallah duma yu tar la lay dóor doon sa dëkkuwaay rëccu leen bala wees laa ilaa illallah yàlla maa ngi lay ñaan bal ma bépp jëf bu ñaawoon yaay borom yërmande laa ilaaha illallah moytu yi xew tey jamono toj na ñëpp a ngi fo fàtte laa ilaaha illallah fàtte julleek ak i koor azaka yaa aji makka da du Quran la ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam wax na dëgg rek ay bour tayit mo yeyo jamu benen bour bo fi jamu sa jamu ñul na bouri bouri mom la mo bind asaman sek suuf sek lepp lu mu mënti doon fep lu mu mënti doon moko dogal ci fep motax sa su ne rek may ñaan yalla nañuy xir ci wax lu baax ak dikoy def alhamdullilah alhamdullilah alhamdulilah alama ihsana ma lam yaxlam gannaaw ba ñu santee yàlla ñu ngi julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed Abdallah ma ca gëléem nga borom bari yeeru or bi yàlla nañu ko yàlla bëgg bëggloo Moustapha di santaat bu baax suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di ziar bépp kilifa diine bu yeewoo senegal képp ku naan ashhadu an laa la illallah rek ashhadu anna Muhammad laa rek ñu ngi lay ziar bu baax di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ndeysaan muy jotaay Seydina mm. Mohamed moom rek lañ fi bàkk ak waa këram duñ fi bàkk keneen waaw di di di di santaat ñëpp rek ah jàpp ci liggéey beeg ñëpp ñu ngi kontaan ci moom waaye tey damaa kontaan oustaz boo xoolee sama kanam sax xam ni kontaan laa man damaa bëgg ay way tey damaa bëgg loolu ku mën a way xam nga man chaque jour ma mbetteel fii man foogoon naa du demee nii waaye commencé gu ñu daanu naa ndeke Seydina naa nii la mel Ndiassane ndeke moom ñëpp ñëpp ñoom ñëpp nii lañ mel ndeke oustaz waaye yow namoon naa la alaaji Malick Dia gars yi it namoon nañ la avant gàmmu gi ba tey oustaz oustaz xanaa dangaa dem ñu may la fa soxna waaw mën naa ne. mën naa ne di ma ko wax. <laughs> waaw dinaa la ko wax ma bàyyi la nga nuyoog ñii seetaan ñii seetaan. ñii seetaan waaw ma mm-hmm. billahi min acheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Mm, ñi ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah di nuyu mbokk yi ma bokk ak plateau bi Serigne Saleh maa ngi lay fay nuyoo. di la nuyu di la ziyaara bu baax a baax di nuyu tamit sang bi ñu macha allah ci way wi allah ah dem ziyaara ji suñu Serigne suñu wasila Serigne Babacar Sy Mansour ah di ko ñaanal mi fi wuutu Serigne Abdou Aziz Al Amin masha allah ñi ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko te yàlla aar ko. te it euh, liggéey bi nga xamante ni mag ñi yoroon nañ ko ba dem bàyyee ko ko mhm. mu yenu ko war koo yeggali yàlla na ko ko yàlla woyofalal ak képp ku mbokk ak euh, maam Cheikh Seydi El Hadji Malick euh, si Maodo Sy Dabakh ñi ngi koy ziyaara moom tin bu baax Serigne Babacar si Abdal Aziz mhm. ak njaboot Seydi El Hadji Malick yëpp Serigne Pape Sidi Ahmed Sy Serigne Pape Malick Sy mhm. ak njaboot gi yëpp ah nuyu mbokkam serigne Sidi mukhtar Mbàkke mu baxmi ah diko ñaanal mom timit yàlla nako fi yàlla yagal lool te mu am wér ak salih ñoñu ñom ñom ñoy taral jamono ji ño taral l'islam bi ño tax lu narona rafet rek lu narona ñaaw rek mu jé rafet yalla na yàlla yagal len fi ak kilifa diine yëpp waaye nag euh, comme ni nga koy waxee ku ne fa nga labee moo xóotee ci foo xóot yow sa dëkk ba nga jëm de mbalaxe waaw sama dëkkub sëriñ fa nga jëm euh, di nuyu waa mbalaxe yëpp hmm. di leen ziar di nuyu xalifa ba alxaaji Moussa Dia di ko ziar bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla may ko ndeysaan euh, sëriñ Alioune Dia waaw yàlla may ko wér te yàggal ko fi lool ci kanamu njaboot gi ah di nuyu kooku nag man mooy sama sëriñ hmm. waaw ku xam nga kër gu ne moom dafa am bunt boo fay duggee. ndeke maam Cheikh sama réalisateur. Uh-huh. ndeke moom euh, Serigne Aliou Dia maamam la. maamam la wallaay wallaay ndeysaan maam Cheikh ku baax. nee na ma mu ngi koy ziar bu baax maam Cheikh baax. di ko uh-huh. ziar bu baax Serigne Aliou. ndeysaan Dia macha allah di port parole famille waa kër maam Alhaji Daouda Dia macha allah ak Serigne Khalifa Dia responsable moral. ak Serigne Daouda ja euh, famille bi yëpp daal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax uh-huh. Serigne Saleh ndeysaan jërëjëfati mi ngi noonu alaaji Malick Dia miin ngeen ko muy nit ku baax borom xam-xam gu wér ci kanam tuuti dinañu bégal ci yonent bi waaye laata may ñëw ci sama waa sama invité saa su ne maag moom ñooy ànd ci rajo beeg ci ñëpp ñu xam maag moom bu baax sëñ Ataaya <laughs> sëñ Ataaya maa ngi lay ziar waaw jërëjëf tey fexeel nag ba mu am deuxième de ngir yàlla ak yonent maa ngi lay fay maa ngi lay fay Saliou Karbala ndeysaan di nuyu ñi ma sekkal plateau bi waaw di nuyu tamit saaliw àddina mhm. di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di wax naan yàlla na jàmm yàgg amiin amiin mission bi moom yaakaar naa ni léegi dootuñ ko présenté déedéet ñëpp a koy seetaan rendez-vous des Nabiens moom yaakaar naa ni léegi ñëpp a koy seetaan léegi ñëpp a ngi koy rafetlu mhm. di nuyu waa Touba di nuyu tamit sama wasila sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axla di wax naan yàlla na jàmm yàgg di nuyu surtout diaspora bi mhm. waaw di leen nuyu ñoom tamit xam nga émission bi saaliw mhm. dafa am loo xamante ni da ci am solo lool mhm. émission bi dafa am ñoo xamante ni dañ koy rafetlu ñi nga xamante ni surtout dañoo nekk ci seen salon yi toog wax nga dëgg ñoom lii la ñu namm lii lañ bëgg mhm. ñoom lii moo leen di dundal waaw surtout tamit di nuyu tamit ñi nekk ci prison yi. ndeysaan ak ci ñi nekk tamit ci hôpitaux yi. ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax. waaye tamit mën nañu seetaan. Eh, ci Facebook bi ci Facebook bi da ngay def. DTV Sénégal nga mën koo seetaan. waaw Saliou daal yàlla jàmm yàgg. amiin amiin Karbala di di di di nuyu tamit suñu directeur bu baax a baax. Mm. moom mooy Alaaji Jupiter Diagne Alaaji Jupiter Diagne. Mm-hmm. di ñaan yàlla tamit kër gi yàlla na fi jàmm yàgg. amiin surtout techniciens yi. xam nga mm-hmm. ñun bu ñu nee euh, rendez vous des nabiens rek ñun la ñuy gis. Ah, mais di nekk suñu ginnaaw moo ëpp lool moo ëpp lool. Mm-hmm. surtout techniciens yi. ay jàmbaar lañ bi ñu jàppee ba léegi bàyyi. tey gisoo Moustapha lañ leen dil Mohamed. ndeysaan Mohamed. te ñëw de <laughs> kontaan naa lool ci moom. ndeysaan waaw di daal ñëpp daal. Uh-huh. yàlla na jàmm yàgg Sénégal amiin amiin Kamba yàlla na jàmm yàgg eh, jërëjëfati yow it kontaan naa mm-hmm. yow ci bu baax nit ku ñàkk ki ñaan la ku baax la waaye sëriñ bi signal yun ah. nde li nga way léegi moom xaw ma <laughs> lii rek nga indi wala am na yu des eh, commencé guñ da nga doon échauffé wu rek waaw ah, dañ doon nuyoo rek ay ci ma bàyyi la nga nuyoo mbokk yi ñuy seetaan aouzu <laughs> eh, billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi bil mustafa qina kulla saa min jami al balaa mm-hmm. وعيزنا من المكار طرا يا كثير النوال جم الأطاو ربي أنت بلنب بالأخياء يا غويا فكيف بالضعفاء وفقير كل غني يا غنيا فكيف فقراء اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Sëriñ Saliou ginnaaw ba الحمد لله yàlla. alhamdulilah سنغي ki nga xamne mom la yàlla faale. mo waral lépp. ki nga xam yàlla dafa joxoon ne ko hé ñu ko waaw yàlla mu ne wa ma ataakum rasul fa xuzuuhu wa ma naakum an ufantahu allahu akbar. lu mu leen ni jël leen. lu mu leen tere bayi leen. sayidna muhammad ne ida naaytukum an sayin fajtanibuhu wa ida amartu bi amri faatu minhu masataxtum. di julli si sang bi. ki nga xam ne ëllëg yowmal qiyaam mooy ram mu jaam yi. ki nga xam ne yàlla dafa ne sax wa man yutaa rasul faqad ataa allah képp ku ko topp topp nga mën yàlla waaye nag boo bëggee am texe àddina ak àllaaxira ñu ne ko yàlla ñu def u ne wa man yuti allaha wa rasuli faqad faaza fawzan aziman toppal yàlla topp sayduna muhammad nga texe ba faw kon di julli si moom di leen nuyu nuyu lislaam nuyu bu sell nuyu bi nga xam ne mooy drapeau lislaam mooy assalaam jàmm lislaam kon boo ko déggee si wax ci si nuyoom mooy képp koo xam ne bokk nga ci diine rek da ngay loo fu la fekk rek jamm ngay wote kon bo bo wote leneen lu lor rek da ngay wote diine way bokko ci diine Moy kon na batu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu njaasaan ñoom ñëpp a yaru euh, ma sha allah ñum Euh di jël nuyo bi <clears throat> di ko tek suñu ñi nga xamne Yalla dafa xar suñu xol def ñu bëgg leen ñi nga xamne ne yemaluñ leen dara ci adina ñi nga xamne bu ak ñom tey luñ doon nii duñ ko doon mhm. mooy samay ñaari waajur nekk samay waajur ñaari waajur waaye yemuñ ci nekk samay samay xarit nekk samay xol nekk samay lépp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel leen te barkeel seen njaboot te yàlla yàggal leen seen njaboot sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin waaye na di nuyu di ziyaara ki nga xam ne mooy xalifatul am li tariqatul qadiriya mhm. يا خمنا ويكت بدفنا يا أحلى بيت النبي هبكم فرض من الله من أبا كان كافرا ظهرا أنتم صرفاء القلق من أنكرها كان مريدا وفاسقا بينا أنتم صرفاء القلق من أنكرها كان مريدا وفاسقا بينا تاين ديد تاي لا تاي جارور نيول تاي لا تاي موني بغ لين فراتا لا كيب يفر بو فينغا انتم صرفاء القلق waa kër yonent bi ah waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg leen farata la waaw bëgg leen farata la ali bayti rasul waaw tey ndax ñooy gën si ñooy gën si xeet hmm. waaye képp ku sib loolu sax mu ne ku fecceerlu nga waaye saay-saay bu feeñ nga kon di ko ziyaare alaaji maam bu Mamadou Kunta di ko ñaan yal na yàlla yàggal ko fi Kunta Sidi ndeysaan yal na ko fi yàlla yàggal si daraje Seydina Muhammad ak képp koo xam ne njabootu Kunta nga moo xam nga dëkk Njaasaan hmm. muy njabootu baay bu di len ziyaara surtout ci li nga xamne ñom ñu jugge fan yeer di ci anniversaire u bu di ziyara khalifa bu tedd bobu di ala Cheikh Sidi makhtar di ko ñaan yalla yalla yagal ko fi mhm. way di ziyara sunu sëriñ sunu buntu si keur baay bu di Cheikh Sidi Cheikh Cheikh Sidi Abdallah mhm. di ko ziyara ak njabotam di ziyara njabootu baay bu yap, mhm. waaye dem ba ndank di ziyara timit wa ndank yep jël ko jox ko sama baay nga xamne moy sama baay ci tarixa bi muy sëriñ bu ne imam yalla nako fi yalla yagal te yàlla guddal fanam si daraja yi sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam di ziare waa sanc buuna waa ndeer waa sanc waa waa waa mm. kenn fépp foo xam ne doom doomi kuntang fa ñu ngi lay nuyu di la ziara waaye nag di ziar tamit waa kër Cheikh na Cheikh Sadbu ñi nga xam ne tamit surtout sayyidina Muhammad leen ñoom ñëpp ñu leen ziara di ziare waa kër Sëriñ Mam Borom Mam Borom Touba waa kër Alaaji Malick di ziare képp koo xam ne daal yaa ngi si yoonu sayyidina Muhammad ñu ngi lay nuyu di la ziara waaye nag di nuyu doo fa an ci Kaolack la bokk ci Kaolack 30 kilomètres de Kaolack foofu lañ juddoo foofu lañ yoroo xam naa ci kanam danañ si ñëw. Mm-hmm. ak tund Kaolack gi yëpp. Kaffrine ba euh, fi nga xam ne mooy fatik Sine Saalum daal fépp foofu waay nekk ñëw naa ba si yow naan asalaamaaleykum. Mm-hmm. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, Saliou di la ziara di am kontaan si yow. di ñaan yàlla barkeel la. amiin amiin mi. El Hadj Malick Hadj Malick. ndeysaan ak Karbala. ak suma frère Khadim moo tax. ma xam la Khadim sama doomu ndey la kooku xam naa si kanam danañ ci wax. kooku incha allahu rabi. nit ku baax damay wax sa sëriñ la léegi. ndeysaan wax naa la ko sànq. danañ si ñëw incha allahu rabi. dëgg la waaye daal ñu ngi ziyaara di nuyu képp koo xam ne. yaa ngi si télé bi di ñaan na télé bi yal na ko yàlla yokk. amiin amiin. yal na ko yàlla yokk si darajay Seydina Muhammad. yal na kawe. képp ku fii liggéey tamit yal na ànd ak barke. amiin si darajay Seydina Muhammad di ziyaare tamit waa Tabala Events Boubacar Camara mi nga xam ne macha allah sunu mag la sunu xarit la euh, macha allah bëgg kër gi bëgg njabootu kunta ñu koy ziar bu baax a baax a baax a baax a baax di ziar na soppi yëpp ñëpp ñëpp bawuñ kenn incha allah bu ñu demee ba ci kanam la ñëpp incha allah d' accord ay ci mën nañ dugg léegi ci waxtaan bi eh, nga ñëwoon ñu tuuti si sa jaar jaar rek macha allah euh, rek euh, sëñ Saliou sant yàlla lañ koy def ndax yàlla dafa ne oustaz in yanzurukum allah ala xaaliba wa in yanzurukum faman dha alladhi yanzurukum min ba'di wa ala allah falyatawakkal tawakkali muminina xaarim nee yàlla nee suma namme li ci Alioune Fall bu aduna ñëpp taxawnu du am day am waaye suma namu li ci Alioune Fall bu aduna ñëpp taxoon dana am du am kon mbiri yàlla moko yor faalu lima yurid yuridu sopp ma ma def ko man yàlla te kenn mënu ci dara sama waajur bi ma doon wax noonu sama papa Abdi Fall euh, yàlla defar ko muy tagg sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci kër njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woy sama yaay di ko aw bu ñu dem Njaasaan sama yaay sama papaay aw sama papaay woy sama yaay di ko aw bu ñu ñëwee si baay bu bu ñu ñëwee si saal bi sama bàpp rek moo doon subhaanallaay baay bu di ànd ak moom di subhaanallaay ba dëndam di riir mag ñi dañ ma ko doon wax sama bàpp ba léegi day saan def ma koy toog di ma ko wax ñu juddu si nag yàlla defoo ñu nekk ay ndaw euh, nekk di jàng nekk élève ah, dem naa ba befem ba tax mooy la sama sama jaar-jaar lu doy waar la xam naa da nga ma xoolaat <laughs> waaye yàq jàng ah. ñu dem ma dem ba dem primaire pare primaire dem secondaire hmm. dem ba cinquième yàlla def ñu samp fa daayira daayira ba kaka taxawal muy sofi bàmbara ak Souleymane Diop mii moo toog nii nga gis ko nii ñu defee ko ci kër ki nga xam ne mooy soxna maam booy kunta di doom ci baay bu bañ ñëwee ñu ne ah léegi nañ taxawal daayira bi ñu dem ñun ñëpp taxaw fekk ndaw lañ fekk na sam papa da doon def gàmmu chaque année gàmmu gu mag boo xam ne Cheikh bu Diop moo ko doon jàng fekk ñun ay tout tànk tànk lañ bañ ñëwee si daayira bi euh, ñu ne waa koor a jàng nag gaa yëpp ku ne di xoolante damaa dëgër fi na ma ñëw Kunta Sidi ñu ngi lay ñaan di la ñaanal yowmal qiyaam ba ñu teewee nga ñaan samaam ramu jaamir ak gars yi commencé reetaan. te eh, boobu ñaataat nga boobu xale la boobu def naa maa ngi def sama maa ngi sama cinquième secondaire kon boobu xaw naa kii euh, tan maam booy ne ma yéen eh, kii loo yéen koy reetaanee doo leen bàyyi jàmbur yéen a ngi waaye bis ngi ñëw ci bis yi da ngeen ko bëgg gis waaye du du yomb doom bàyyi bu moo tax wax loolu ñu nekk si daayira bi. ba Sadim euh, sëñ Saliou lu ma gën a yéem man Kunta ñoo ma formé ñoo ma jàngal way muy Baba Kunta te Amir Khalil Kunta Amir Sawdi Serigne Mohamed Kunta ñii ñoo ma formé si way may ànd ak ñoom si daayira yi di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ba nekk sama dem ba war a def BFEM ba ma defee premier aw ma BFEM ñu ne ma gis nañ talent si yow doo heure boo boo bu école tëjee doo dem si Cheikh bu Diop Ndiassane nga dem gëstu fa xam-xam parce que tamit nit ki lépp looy def te xamoo ko du la jëriñ Cheikh bu Diop ñëw jàng suñu kër fekk maa ngi nekk ndaw jàng fa ba sama yaay daano jël ma ne Cheikh bu Diop may naa la sama doom ji yaxam laa la laaj. looy wax nii sax dañ ciy gis Cheikh bu Diop li nga toog yëpp seex bu Diop laay gis. <laughs> waaw kon jeex na. vacances jot ma dem Ndiassane. def ci Cheikh bu Diop trois mois. année boobu la génnee woon xilaafa Ndiassane. maanaam woy ataara bi ak yeneen yeneen ma ma bokk ci ñi kat aw ci kaset bi dafa trois mois trois mois yi jeex ma ñibbi dem continuer sama njàng mais daal damay dem si ay jàng su ma demee su ma demee école daal du ma sentir école bi man la may gis mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ilaa nag demee na ba bàyyi jàng ma dem kër Lamine dajeeg fa bi ku ñuy wax sëriñ bu ne imam loolu nuyu sànq ميوين منه ولي ومنه مقتت بدل والغوز منهم ومنه قائم شحري وما خيلو سرين بونا امام بوم جيلي ميكور بي نا خالي بي يال نكو يالا باركال الا غيسه ما نكو دا ما دا ما بغ خم خم باسكو ليب لوي ديف تخ امو سي خم خم دو سي جيرينو بونا ما نيول اور بو نيوي ندانك ما جابالي لا الا غاداي نا دم ندانك نيك سي سرين بونا امام نيك فا اي دير بو كيي ما نيبي وات نون لا كاي ديفه سي لما يالا نات ma dégg olof naan monat du nàmpal ay dooyo moom da xool mu suur loolu daf maa dal ci jëmm jooju maa dal ci jëmm jooju ma jugee ndànk rat yàlla ubbil ma natt allah dafal ma fatax lu ma bëgg a xam-xam ko lu ma bëgg a jàng-jàng ko lu ma lu ma bëgg a mokkal ko yàlla suturaal ma ci loolu ñuy dem ba ma am ba 2009 fekk 2007 laa bàyyi jàng daanaka deux minutes laa soo ko commencé dugg si tagg yonent bi kon yàggul. yàggul 2009 ma génnee album six sons 2009 ba 2015 ma dégg def sama deuxième album ànd ak clip ba jamono ji ñuy dem macha allah. clip bi mooy Moustapha bëgg naa la. mooy Mamadou bëgg naa la bi nga mm-hmm. xam ne woy nañ ko si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla def tamit ñu def ñett single ak macha allah ñeenti single daanaka si at bii def nañ ko si. daanaka sunu jaar-jaar dal loolu la sëriñ saliw manam dere day rogalat nang ko don wa dagn ko donn manam don gi ñu ko don sun papa waaye namit ndimbal yalla yàlla mhm. sa doomu aadama kenn mënut waaye yalla ay dimbalé mhm. waxna ko sank gis nit bo naré bu la yalla naré baxara dalay baxal tay da ngay dem ba Ndofane legi Aline Fall day taxaw si jumaa yi def bayan ta jaaru ci daara leral bayan moy manam di taxaw ci jumaa di def leral di waxtan mhm. ci jumaa waaye buñu ñu waxee ñu ne jaaru ci dara yar gi nek njaasan man lol mom jaaxal na ma. man bëgg na dem njaasan nak musuma dem njaasan manam mais ñom lutax ñom ñoom ñëpp mel man lol jaax <laughs> lolou sante yalla la gis nga serigne hmm. serigne serigne bu mënul yar taalibeem bañ yaru. ñoom sëriñ leen gën a jege sax que tàggkatu yonent ñom comme ñom ñëpp ay sëriñ lañ. Euh, dafa am way bi dafa né sa sëriñ. Hmm. bu défé lim def ci yow ba paré lokay wax. wa inna ma ashyaqana ahbabana alamu minna bil kitaabi wal asari sëriñ tar tarbiya la yarkat la mm-hmm. moo tax képp koo xam ne tali taalibe xaadir nga da nga bokk ci tariqatul xaadir ya fu fos nga yaru boo yaru war na war na xoolaa sa bopp fu fos nga doon ku ragal yàlla Cheikh Sidi Mokhtar Kunta xam naa danañ si ñëw ci kanam daara du mu jàngale dafa ne képp kuy jàng lu ñuy bind doo fa jàng ñu ko Cheikh Sidi Mokhtar lu tax yàlla dafa ne mu ne yàlla dafa ne mm-hmm. ragal ma man yàlla ma xamal la nit boo ragalee yàlla yàlla xamal la nit a ngi fees dell xam-xam ñu naan fu mu jëlee xam bi mm-hmm. xoola ko diggante ak ma boromam ndeysaan heure boo ragalee sa borom rek yàlla xamal la mm-hmm. Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh bu Kunta borom Ndiassane mam Cheikh bu naa ma lam yeer ci ay taalibeem mooy ragal leen ci taqwa yar leen ci taqwa yar leen ci iman yar leen ci bëgg yàlla waaye yar leen ci bëgg sayduna muhammad te lii rek a wóor lii rek a wóor te ku ku ibnu asir oustaz dafa ne yushabu sayqan aarifa almasalik yaqihi fi tariqihi maalik yuskirullah ida raaw wa yusir abdu ila mawla sëriñ noonu la war a mel heure bu mel noonu rek boo ñu la sëriñ nga da ngay nax sa bopp moo tax leneen ngay am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na abgadul ibadi ila allah man kaana thawbahu xayra min amilihi an takunu siyabahu siyaba anbiya wa amalu amala jabaari man daal bari naa seen alune te dara xewagul. oustaz mag ñi loolu la ñuy yaree. mooy bëgg yàlla. suñu xol bi dara nekku ci lu dul yàlla. alhamdulilah suñu xol bi dara nekku ci dara feesu ko lu du bëgg Seydina Muhammad. yàlla nañu ko yàlla defal. suñu xol bi képp kuy a kunta képp kuy taalibe xaadir àddina du la yitteel. parce que yaruñu ci àddina. alxuraan la yàlla wax oustaz yaa qawmi innama haadi xayaatu dunia mataaw wa anna al aaxir hiya daaru qaraar yàlla na ngeen xam ne adduna bi temps bu banneex buy jeex la te yowmal qiyaam la kër gu sax daq la yàlla delluwaat si alquran ne maa hiya ila xayaatuna dunia namuutu wa naxya wa maa yuxlikuna ila dahru dara sànku leen lu dul àddina te na ngeen dee deeki kon su loolu la ñuy yar bëgg yàlla bëgg sayduna muhammad Ndeysaan ma ne ko ma nga noonu Seydina Alioune Fall ngi noonu yàlla nañu yàlla bëgg loo yonent bi amiin maa ngi ñëwaat ci yow tey nag da nga di nga ñu woyal ba ñu doyal ndax li ma dégg nga way da mën a way loolu am nañ si yaakaar mm-hmm. bëgg nañ képp ko sopp Seydina Mouhamed tey nga békk kon soppe yonent bi defaraat leen seen toogaay bu baax ah. guddi gi moom tey tey dina yàgg loolu dina metti oustaz borom mbëllëxe waaye nag eh, man maa ngi gis ci télévision yi publicité bi di daw de le 30 moom du yomb seen bis bi xam naa ni mbëllëxe yëpp a ngi koy waaj ma ciy ziar bu baax sama soppe bi sànq tudd nga ko sax eh, Cheikh bu Diop alaaji Cheikh bu Diop muy nit ku baax nit ku mën loolu li muy def waaye tamit sama soppe bi Serigne Alioune Dia maa ngi koy nuyu ndey mbël xëy ñooy ànd de mi ngi lay seetaan en direct nuyu ma bëgg rendez-vous di navien sax ñu yëkkati ko dañuy ñëw day ñëw mbël le 30 la le 30 incha allah incha allah waaw kay bi mooy ñaateem édition bi waaw parce que gàmmu gi depuis 1916 1916 ba tey la ko maam Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhu joxoon maam Alhaji Daouda Dia ah ñoom kilifa yi mu ñoom euh, bàyyu sëriñ bi euh, Seydi Mouhamadul Amin euh, di premier xalifaam macha allah doon ko taxawu ba mu yegsi ci loxo suñu sëriñ sëriñ Alioune Dia <coughs> macha allah mu continuer ko di ko di ko doxal depuis 1916 ba jamono tey jii. ah macha allah bon nag ñi ngi ci télé bu mag bi tamit di jàmbaar lool ci gàmmu yi. DTV. DTV macha allah. coowan mm. <coughs> ñoom macha allah ñëpp a ne ñëpp ne gongo ndax. Youssou Touré nee na ma kër boo dugg Tiwaawan DTV la ñuy seetaan. ñëpp DTV la ñuy seetaan ndax seen liggéey bu rafet. ndax bu gàmmu jotee ñu wane seen taxawaay wane seen cofeel ci unité bi. wane tamit taxawaay bi ñu war a am ci diine ji. alhamdulilah waaw gis nga burdu ya direct ba macha allah maa ngi koy wax Mansour ci gàmmu gi ñu ngi dajee maa ngi ko koy wax parce que Tiwaawan ñëpp a ko wax. ci seen rafetuk euh, taxawaay waaye nag yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moo doy noonu ndax yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga jamono mënta dox te doxewul doxu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono mënta neex te doxewul doxu doxunu yun ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom tey moom moo tax loo bëgg loo bëgg mu neex rek na nga ko ca laal moom moo tax boo xoolee DTV bu alxamis jotee ñëpp rendez-vous dina bien lañu lañu lañu la ñuy seetaan ndax li li sang bi wax léegi rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom moo ko teral parce que lépp luy leer parce que inna al awalima aaliha وصافي لها أسعة طلعت من أفضل النسب موي عالم يكوي أك عالم يسوفي يبو تي لير ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم لن لنو لير ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم لن لن براش ونك آه، قديم بتجم وقتهم لبو دنكو ورا مغل نخ أمول بس كوي خار بسو ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم ak judom rek ngar ngar koy wara magal màggal sallallahu alayhi wasallam togay gi mi ñu tok bu nexé sax dañu wara magal màggal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam deug la ndax wa innahu id arada allah nashatana wa abana min nurihi nuran bil alamin kérok bi bi suñu suñu biko yàlla biko yàlla namé sax ci leeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la suñu ci la suñu ci la suñu am amé waaw te te su suñu am ba mu amee nag lépp luy teraanga ak lépp lu yiw ak lépp luy jàmm comme sànq ni mu nuyoo assalaam assalaam di firi di firi jàmm te nga gis ne l'islam rek moom moo am nuyoo boobu asalaamu aleykum wa rahmatullah képp koo ko képp koo ko wax rek macha allah la ca nekk ci yiw kenn xamul na la toll te njabootu yonent yàlla muhammad rek moom moo tax mas naa la ko wax daan ne min kulli wasfin xamidin xaaza afaala tafdilin waaye rajaul baraya yowma musdaxami lépp lu lépp loo jël rek min kulli wasfin lépp loo melal rek la ca gën yàlla jox na ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax saalih euh, moom moo tax Seydil Hadj Malick ak Maam Bu Kunta ak Serigne Touba ak ñi ñu am ñëpp tàntal yonti ba léegi boo demee ca màkk dañ koy tàntal <laughs> waaw moom moo eh, eh, moom moo tax sëriñ euh, al al al alxaaj daawru ja ca mbalaxee moom tamit depuis 1916 di ko tàntal ba tey euh, ñu nekk tey ci 2017 ci 30 décembre. mu war a ànd njaboot geek sët yeeg yëpp mouvement dooleel Serigne Alioune Dia ak ñëpp ak euh, mouvement jeune Tidiane bu Alxaaj Daawda Dia ñun ñëpp ñu war a ànd la 30 ànd ak Serigne bi daal di ngir leer yonent yàlla Muhammad euh, góor ga moom Alxaaj Daawda Dia la ko ci Seydi Xaaji joxoon yiw booba ñu ànd ñun taalibe yi. ñu ànd ak njabor ga ànd ak Serigne aliou ndia ak fay ba yépp ñu wara ànd wara yegg war ko magali fofu ci mbalaxe loolu yëpp la yontu bi parce que wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun guddi fi ta'zim injahu asujuni mune nak magal ndax magal guddi yontu sallallahu alayhi wasallam bis bu ne nak et parce que yàlla mo wax xaala malayku samaay xaala xaalal malayku abwaabu samaay futihat waaye kësal jinaanu mu ne eh, keroog bi leer yonent bi salaay salaam wàccee ci biiru yaay Amina yàlla dafa digal malaayka yi daan ne eh, buntu aljana yi nañ ko tijji ndax lu tax ñu koy tijji tey leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa war a wàcc eh? ah, bi leer gi wàccee ci yaay Amina waaw ah, laylal arubati xalla duru fi rajabin summal munaadi munaadi musmihal fahabi waaw sax lu ñu doon wax tanabbahu yeewu leen tey nalaw amatul tanabbahu an na nuural xat mi laylakum tey yeewu leen tey ndax leeru ki nga xamante ni moom moo war a mottali yonent yi salaay salaam wàcc na tanabbahu yeewu leen lu mu ca teg mu ne nañu cuuraay atiru baxiru xayral buqóori waaye waa fi jur sa jaade takriman alal qudami nañu nañu parfum te cuuraay talal si daada yi waaw tey dañoo war a ndax leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na. tey. keroog biñ tijjee buntu aljana jant bi sax keroog dañ ko yokk jant bi keroog bu nekkoon cent nekk na deux cent. waaw keroog nag nga gis ne kenn rek mooy yàlla lu mu def rek. dina am dina am ñu mu neex waye dina am ñu mu naqari keroog boo xoolee iblis rek mo am lu ko naqari ndax kérok jàpp na kérok qul jaal haqq wa zaaqal baatil waa inna al baatila kana zahuqa ndax bu deug feñé moy mom la ndam day day mur waaw kérok iblis mo onku binni yuxu xamné dara lim daan lim daan liggéey ak liggéey bi mu war a def ak ak liggéey mission bi mu doon am ci yàq mission ba dootul am mission ba jeex na yàqu na ndax ndax euh, leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw bon nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam eh, kenn du moom yàlla yàlla yàlla nañu yàlla taas ci euh, yàlla ñu yàlla taas ci ay leeram waaw te bu soobee yàlla dinañ ci ndeysaan yow dinañ ci Aj Malick a ngi noonu ndeysaan Alaaji Malick Dia léegi nag xam nga nooy def mhm. da ngay yëkkatiwaat micro bi man dama bëgg won wa aduna ni mën nga way <laughs> dama bëgg aduna bi yëpp ci kanam tuuti sax di ngeen mëna ñëw ci 88 628 11 22 bëgg ñu ci sangu sang yi rabbi bil mustafa ya rasulallah yonnen rabbi bil mustafa sayyiduna muhammad يا ربي صلي على المبعوث برستي شيخ المشايخ الشيخ سيدي مختار ngay يا ربي صلي على المبعوث برستي فوق جراد وفوق النمل في عدد وفوق ما دب فوق الأرض من علم أحل النحار وأعلى الليل بالسود وفوق ما فوق الفوق من مسد وتحت ما تحت التحت من حودي صلي على علي وصحبي وسلم تسليما وي دفلني ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نبي دينا لا وي با سيدنا محمد نبي دينا لا كان با yaa rasulallahi sa waay du ñeewaayu keneen sayduna muhammad sa waay du xaddi dem feneen kenn du la gëm di gëm leneen sa diina doy na xarnu bee kenn du sayduna muhammad yaa rasulallahi ahmaduna waa TTV déglu leen tey ma bëgg leen ci sayduna muhammad ahmaduna ay sunu yoneen habibullahi soppe yàlla laa safiyullahi jaasi yàlla laa aminullahi ku gëm yàlla laa najiyullahi kuy diisoog yàlla laa xayrul xalqi gën gi mindeef xayrul rusdi gën gi yónneen xendal kulli ci lépp lu mënta doonooy kooku mooy muhammadu rasulullah ya rasulallah ya imaamul haramayni wa rabbul aalamiin ay yonneen ay waay sama waaji sunu waaji sëriñ saaliw xanaa xamoo ne bur yàlla nee na soo bëggee man yàlla ma bëgg la ah. bur yàlla nee na soo bëggee ma yërëm la bur yàlla nee na boo bëggee ma jéggal la ñu ne ko yàlla lu ñuy def mu ne topp leen Seydina Muhammad su ngeen ko toppee man yàlla ma bëgg leen su ngeen ko toppee man yàlla ma yërëm leen su ngeen ko toppee man yàlla ma jéggal leen ay yàlla ngi na ci alquran qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukum Allah zunubakum wala waqafu rahim oustaz kenn du sayyidina muhammad rasulullah ya rasulullah mbooloo mi déglu leen xanaa xamoo sa soppe boobu al mi rëy rëy yaa woo na ci sayyidina muhammad doon ak juróom ñaar ci alquran waaye oustaz musu ko ooye ya muhammad te da ngay dem ci alquran fekk naan ya daawuda ya isa ya zakariya ya muusa ya ibrahima waaye ya muhammad doo ko fekk ci alquran ni doom di woowee nday la yàlla di ooyee sayduna muhammad demal ci alquran yàlla ngi woo sayduna muhammad tanan ko ya ayo ya ayo muzamilu kenn du sayduna muhammad rasulullahi mustafa mustafa سيدنا محمد رسول الله موي محمد الروح الوجود وسر أكواني إمام العصاب سجود فما لو ثاني موي محمد القير الورى نبينا عوا محمد المدرسة سبحان ما أنسى ومسو بالله تقول لين مات الله جن مات سكجور كملني سيدنا محمد رسول الله تجي جن دوت سكجور كملني محمد رسول الله ومسو كان يا نن ومسو يا رسول الله ومثله ليس يرى أصنع ليلى قد انتقى لو الجداد من كل لساني يوحد الرب الودود سخيخ الإيمان نبينا من دبقنا لا نبينا نيون دبقنا نيون لا نبينا سينو زمان سيدنا محمد رسول الله سرين ساليو بوي لا نكو يا رسول الله موي سيد المسلين سيدنا محمد موي سيد المجاهدين موي سيد الشاهدين موي سيد القاشئين موي سيد الطائعين موي سيد التائبين سيدنا محمد موي سيد التائبين موي سيد عابدين موي سيد حامدين سيد الصالحين سيد الراكعين سيد سيد الساجدين سيد القائمين سيد المتقين سيد المستغفرين سيد النادمين سيد الشاكرين سيد الحافظين سيدنا محمد مو سيد الحافظين دفلني نيو ماكل محمد رسول الله مو سيد الحافظين سيد الذاكرين سيد العاقلين سيد المحسنين سيد العكرمين سيد المنذرين سيد المبشرين سيد الطيبين سيدنا محمد مو سيد نبينا مو سيد العالمين مو نبي مو زكي مو نقي مو قريشي سيدنا محمد بولا نيخي مو محمد آه. أحمد حامد محمود أخيد وحيد موي ماء موي عاقب موي طه موي ياسين موي متحر موي طيب موي سيد موي نبي موي رسول رسول ملاحمي رسول راحتي سيدنا محمد موي إكليل موي كامل موي مدشر موي مزمل عبد الله من دبك نالا عبد الله سيدنا محمد عبد الله سيدنا محمد عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله خاتم الانبياء خاتم الرسل موي محيي موي منجن موي مذكر موي ناصرون سيدنا محمد موي بصير موي مبصر موي نور موي سراج موي ذو قوتي موي ذو مقنعتي ميزو حرمتي ميزو مقانتي ميزو عز ميزو فضل رسول الله موي مصطفى موي مجتبى موي منتقى موي عجيرون جبار ابو خاسم ابو طاير رسول الله رسول الله رسول الله دفلني مكة سيدنا محمد آه. إيه، يا رسول الله آه. rasulallah yan neen musawaak billaay talaay moo tax dañ ne saalim na lu ne yaay ju mooy door doom ju baax xanaa xamoo sa soppe boobu hmm. dañ émission bi le rendez-vous des nabiens kon nabi dafee war a saf-saf tudd na lu ne rasulallah soxna mi nee naay xanaa xamoo diir ba mu ambee sama doom ji mooy sayyiduna muhammad Cheikh Si Maxtaar da koo woy sëriñ Muhammad bu na ne wa kamraat min ajabin aminatun ummu nabi wax nga ko sàq si leer ga cheikh simata indi nañu ko haza muhammadul mahmudu fi azalin min nuri li jami nirati thaba li annahu shamsuhu wahum kawakibu fa inda talati sara jamil haba li nusqi sharati min kulli sarai iz ala jami rabba wa kulluhum nala alqista ghayra muntaqisin min nuri min nuri wa adaaya xasu man xasaba sayyiduna muhammad moo tax xanaa xamoo rasulallah ci doom ga doy na waar benn weer ñaari weer ñetti weer ñeenti weer juróomi weer juróom benn weer juróom ñaari weer juróom ñetti weer juróom ñeenti weer rasulallah yi ma ngi ci biiru ndeyam dafa fëgg biiru yaayam te naan ko yaay booyo yaay booy yayi boy ba mi muna yoon mu ne yaay boy maay sa doom sayyiduna muhammad yaay nang ma waajal nag suba si altina laa war a gane duniya sëriñ saaliw dom ji gane dunya di tago kan la fi dal kooku mooy maami cheikh bu kunta borom jaasaan bu ku mooy cheikh bu naama mooy maami seyxul masaayix mooy maami cheikh abdou qadir jeylaani Sultan law di ci gàttal xanaa xamoo sayyiduna muhammad sibiru biiru yaayam lañ ko sangee si biiru yaayam lañ ko tusngalee si biiru yaayam lañ ko parfum ñett parfum ya bawoo ca aljana rasulallah si biiru ndayam lañ ko defal lu ñu defal góor ci biiru ndayam lañ ko poncelee fanweeri ba ñett ñaar ay waay xanaa xamoo rasulullahi ab liir bay gën a duniya boobu ba lay njëkkee yaram ba topp ñaari tànkam soog a ñëw waaye xoolal sayyiduna Muhammad moo rafet nu mu gën a duniya ba mi gën a duniya moom rasulullahi ñaari tànkam jital yaram ba top ci bo bo sogo ñew ñëw muhammad ba mu gëne dunya dafa tok tok bu jekkay xol rasulullah talal baram bi baram bay gëne mew rasulullah di macci mew ma xool kaw asamaan jàkkaloog yalla tan ko subhanallah manga nan subhanallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ku dégg lii may wax si yeneen bu la fekkoon nga toog jugal taxaw ñu màggal muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam màggal sayyidina muhammadu rasulullah moo tax ma way ko tan muhammadu rasulullah rasulullah muhammadu I'm not. yàlla na yegg amin émission bi yàlla na yegg ak jàmm imaamul anbiyaay ndeysaan lan bi yaa man de xam naa ni ëllëg ku tiit yaa kay rambu yow sayduna muhammad oustaz bis bi nga xam ne bur yàlla nee na yàlla nee na ci alquran yow ma naq تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتصحد أرجلهم بما كانوا يكسبون أي لنا يوم تبلى سرايل فما له من قوة ولا ناصر bis bi nga xam ne ndey dina daw doom bis bi nga xam ne baay dina daw doom bis bi nga xam ne jëkkër dina daw jabar bis bi nga xam ne yàlla ne ëllëg loxo lum defoon ci àddina dina ko wax bis xam ne yàlla nee naay bët lu mu musa xool si lu xaraam ëllëg dina ko wax bis booboo sëriñ kenn lañ fa yaakaar kenn lañ fa yaakaaroo mooy muhammadu rasulullah yi def leen ni ñu màggal sayyiduna muhammad ndeysaan xanaa xamoo bis bi nga xam ne aadama day daw ibrahima dina daw insa danan jaam yëpp maa ca gën a grawle man maa nekkoon ci duniyaa ñu may woowee doomi yàlla te yàlla nee na qul huwa allahu ahadun allahu samadun lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun ëllëg yowmal qiyaam ustaas bu ñu jaaxlee ba jaaxle yàlla day gëdd jibril naan ko jibril dama jëlee ma sayduna muhammad jibril ñëw ca bàmmeelam ba te naan ko pëkk pëkk sayduna muhammad jug taxaw xool sa ndey jooram ababakar sadiq génn xool sa càmmoñam sayduna omar génn mu dem baqiya jëli sayduna ousmane dem réewu baxdaad jëli sama turandoo sayduna aliyin keroog sayduna muhammad ànd ak délégation drapeau li waawul xam di tiim ko xanaa xamoo ëllëg yowmal qiyaam benn ker mooy am mooy محمد كرو الله يوم القيام كم كرلو دو كرو الله يوم القيام سالي داي فك ني لب تي يوري دي باخ دي في تخ سفر دو يوخو نار سورما اجانا غي في خم دي خار ني ديف yonent da day ñëw tanaan day julli yan na ko sayyidina Muhammad julli xeewi na ñaar ma rek ma may la mu ne ko yàlla yaa ne moon ci alquran wala sawfa yuxtiika rabbuka fa tarda te man sayyidina Muhammad fa inni la arda duma kontaan fekk maa ngi sama xeet kenn du dugg safara ci booba amul tiijaan amul xaadir amul laayeen amul ñaseen amul cane ba cane ba ñun ñëpp benn sikkar la ñuy sikkar muy baatu laa ilaha illallah rasulallah yi ànd ak gaaña soixante-dix mille malaaka mooy escorte sayyidina Muhammad xam na ëllëg kañ lañuy dugg àjjana dimanche lañuy dugg àjjana jour dimanche waaye xam nañu ndekkee ajana res la ñuy ndekkee àjjana ñii na resu jën la ñii na resu nag la ndax baxmuut mu nga ci juróom ñaari suuf ëllëg yowmal qiyaame borom xam-xam nee na ëllëg yowmal qiyaam moom la ñuy rey jox ko Seydina Muhammad ak njabootam ñu koy lekk def leen ni ñu màggal Muhammad Rasulullah yàlla teral na la yàlla teral na yàlla teral na la ko ànd ak Seydina Muhammad foo mën a dem da ngay am def leen ni ñu màggal Muhammad Rasulullah Sëriñ Saali maam Cheikh man kaa leen dimbale ma man moom man man émission bi yàlla na yegg sax man moom man moom ñi daa man leen yónni si man tey man ñi ngi may bëgg a rey oustaz xamatuma ci dara de man xam nga man man émission bi daf maa dimbali ci lu bari man damaa gën a bëgg yonent bi maa ngi ko wax ñoom Youssou Touré ak ñoom Oustaz a bëgg yonent boo ne xayru bariyati rek ñu xam ne waxoog Moussa tey di waxoog Insa ñu xam ni waxoo waxoo kenn ku dul Moustapha moo gën ñëpp ndeke Mohamed Niang mm-hmm. damaa xool léegi sama téléphone nee na mi ngi topp jotaay bi xolam sedd na guy ci yow. Mhm. nee na ma géej naa gis ku mënee way ni Alioune Fall Alioune Serigne Alioune Fall mi. mën na way woo kii moom mi ngi may bëgg a rey fooy jàngati maa nga fa. <laughs> incha allah xaadim waxoon na ma ko nag xam nga damaa dëgër bopp. Mhm. sànq ci suuf maa ngi ci rajo bi mu woo ma ne ma tey ki ngay dalal. ne ma sëñ Saliou tey ngay jommi barki Serigne Saliou moom ko wax ne ma te man jommi naa. Mhm. moom Karbala xanaa jommi nga. man kay fi mu ne damaa paralysé <laughs> wóo lu may xim. yàlla na émission bi yegg amiin Saliou Saliou. man Seydina Aline dama ko gisoon sànq mu sedd trop nga xeeb ko. ma xeeb ko ndeke def nga erreur bu rëy doomu aadama kenn ko xeeb. erreur technique nga def wóo tey def naa erreur. maam Cheikh. te lii mooy ànduna waa ji dund ndeke. gis nga Saliou. Hmm? Saliou gaynde. maam ma numéro bi fii soppe yëpp ngi ci ligne bi xam naa. gaynde buy nelaw ndeke kenn ko yee. استاذ كندو سني واجد نيول نيول نيول نيول نيول سيدنا محمد كندو مام سانك دوكو واخ دان الله يوم القيامه كندو ام كير يونتي بي رك مو فاي ام كير والله هو دعوات العظمى يظل بذله يمن بلا من ويمسي اوين في المعاصي واو الله يوم القيامه مو سانك ما لوكو جونجو نانا لا كيروك بي ليرغي واتيه kenn rek moo am problème. Mm-hmm. ndax lépp loo xamante ni taxoon na pour yàq ko. Iblis. Euh, keroog Saaliw. Mm-hmm. wa anna rannal qabbu yaxduruhu. Euh, yax yaxduruhu wa huwa raadidun min min mm-hmm. asadami. keroog Iblis dafa yuuxu. binni onku. wa euh, keroog bi mu yuuxoo. ñi ànd moom ñëpp dañoo teew. Ah, waaye wax sax mënu ko. ma ngay lox. ngir tiit ak njàqare. xam na tey kii war a sauver xeet bi mu yënt yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw na wàcc na lan leen wax xaala waylakum ya ummati xummilat fi haasihi durratun min ahsani min ahsani toomi daan ne yéen de sama njaboot gi woo naa seen toskore ndax tey jii ëmb nañ ki nga xamante ni moom mooy gën gi mu def mooy yënt yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un neuf mois lañ ko ëmb te weer wu ne am na yontu bu ñëw ndokkeel yaay Amina mm-hmm. wa jaa aadama mm-hmm. tabshiran lahaa tey mm-hmm. aadama ñëw na ci njëlbeenu weer wa ngir ndokkeel yaay Amina waaw oh. ah, bon nga dégg euh, ñi daan wax euh, ay euh, lu mel ni gàmmu dafa xaraam wala genre bidaa la bidaa lañ ko teg teguñ ko fenn ah teguñ ko fenn eh, gis nga yàlla moo yebal ay euh, ndawam ngir ñu ñëw ndokkeel see amina nee na kuy nay di réer di wax ne gàmmu bi daala bul gëm waxab ne ko seytaane nax na la bu dee bidaay neex na de di waxtaan ci yonent bi mooy bidaay bu dee bidaay bëgg nañ gàmmu rasul su dee bidaay rafet na kon rafet na de abu sayid buur julit bu baax ba woon xamaa xamoo gàmmam ku rëy gu siiw ga woon juróomi junni xar la ren sare ko ko bisu keroog abu sayid kenn nu ko teg na ci ren fukki junni ci ginaar doguma la Seydina Alioune man moom jël ko 88 628 11 22 bismillah déggaatal kii man waa Ndiassane yi. ndeysaan bol daal. bàyyi seexal bekkaay góor ak jigéen mag ndaw. ku ma borom Ndiassane ne say baaraam. am fi lebar ba ndar. Ah. yii dee nga ca calle. mi ca jumla yaay barkatee la reer. baaxi baay maam. bahi andondo ken mun leen a ñaawal ku leen nyaawal nyaaw bilaay ko leen nyaawal nyaaw wallahi taala ay dëgg la ko ngeen bokk ak yonent bi ben maam hmm. ngeen del wa rasul ay doom ben maam fo leen jaar am fay karaatul kuntiyu assalamu alaykum rahmatullah wa alaykum yow ya, la kan mansour vidal man la mansour mansour vidal yeen ya, ci AIC bi nga bokk mansour vidal dëkk kër massar ci an fal kontaan ni baax baax baax alhamdulillah yàlla yàlla barkeel la amin amin yaa rabbi bi jaay Moustapha amin yàlla yàlla yàlla taxaw la amin amin yàlla yokk lu ba nga yëg ko ci barke yi naam Muhammad amin ah kilifa gi ko nga dalal nag suñu xarit la lépp la mhm. amin ndeysaan dafa dogal mhm. mm, borom boole ñu bokk li ñu bëgg mhm. muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi mën a wax ci moom daal mooy bu yóbboo di ko ñaanal rek yàlla lafal ko cat. amiin ah Seydina Alioune mi kañ. waaw suñu waay la suñu lépp la. kooku defe naa ne axlu bunt yi ñëpp xam nañ fi Alioune Fall. Mhm. rawatina suñu mag Cheikh bu jóg Pape Dafé maam bu jaxate suñu maam Pape Youssou Tine Arona Mbodj ku ñu lii ma rek dañuy daal di juum. di ko ñaan rek Aliou Fall yàlla na yàlla barkeel la. amiin ñu bokk ko amiin macha allah yokk xewlu baax a baax ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu baax ndeysaan loolu rek moo tax kontaan ah, kontaan nañu kontaan bu baax. suñu xaadim bu baax a baax. jërëjëf nga xamante ne mooy magu jëriñ moomu toog. jërëjëf Bamba mi ngi ci rajo bi sax moment yi ngay wax nii mi ngi ci rajo bi mi ngi Soxna FM. mu ngoog yàlla yàlla barkeel. Ah, amiin amiin amiin amiin amiin. di jaar waa Ndiassane yëpp. jërëjëf di jaar Serigne Sidaat Kunta Cheikh Bekay Maodo. jërëjëf jërëjëf Khalifa Kunta. ànd mhm. Kunta ñëpp daal ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant. jërëjëf amin amin ñu ko ak ñiy seetaan ñëpp d macha allah ah, fii ba bitim réew xam nga ni kenn nelawul. Hmm, DTV wër na àdduna. sëñ Abdoulaye euh, sëñ Abdoul Ahad Mbacke borom léppay baax. ndeysaan mi ngi mi ngi seetaan ak sëñ Jili Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. dëgg la euh, dégg la. waaye te doguma la xam nga xel day fàttu daf maa mës a dal fii. Mhm. tey los losama losama dimbali nii def ma nii. Mhm. los jaay taar couture Pikine Rue 10 maa koy ziar bu baax. Mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk yàlla barkeel ko nit ku baax la. sànq laa nekk ci rajo bi rek mu ne ma tey maa lay solal. ma dem ndeysaan mu def ma nii maa ngi koy ziar bu baax los jërëjëfati. macha allah Tamba Diarra ah. rafet na lool tabar. sëñ Ablaye Diop tamit. sëñ Ablaye Diop mi ngi koy ziar bu baax. ku yàlla baaxal borom xam-xam bu wér sëñ Ablaye Diop. foog ma yóbbu la fa mu mu defal la ñaan. incha allah sëñ Ablaye. dañ koy ran. Ah. du nit. Saliou mm-hmm. Saliou la mm-hmm. mel ni sëñ euh, Aliou mi man looloo ma jaaxal. lu tax du ñëw Dakar. ci bés bi fii la euh, ëppee Karbala wax na lu am solo yéen. li mel nii yow waa yaa leen gën a ay kii kii léegi lan moo tax nga toog Kaolack rek. <laughs> lu tax mu toog waa yu la xam yow Sorano kañ nga dem Sorano. incha allah ko yàlla dogalee rek. xam ne àddina mhm. Serigne Saliou. Mhm. français dafa ne rien ne sert de courir il faut partir à point. wax nga dëgg. addina dara jaru yàkkamti te dafa am luñ gëm euh, gëm nañ ne incha allah dinaa ñëw ay ndaw lañ te ñu ngi si yoon te yónni yonent yàlla Muhammad amul tànk ginnaaw. Cheikh Bou Diop numéro 2. yoo xam nga Cheikh Bou Diop. Cheikh Bou Diop Sénégal doo ko kii Cheikh Bou Diop laa gis de. <laughs> yaru geeg xam-xam geeg mën a way gi. dëgg macha allah te moom daa bëgg ay way moom buy way sax da ngay xam moom moo njëkk a daanu ñëpp. dëgg la waaw macha allah moom daa mel ni man. macha allah ak xanaa moom pour nga xam na wala neexul yow lay njëkk a bu la daaneelul rek baaxul. <laughs> buy way day mel ni kuy jooy. plateau bi yow lay njëkk a daaneel. poobaraat ñu ci Moustapha. maa la bëgg Alaaji ngi nekkoon ci euh, euh, euh, gi ma ne la euh, ma ne la ëmb nañ ko neuf mois. neuf ma ne ko mane la sànq daan la aadama moom moo moo njëkk a ñëw. Mhm. ndokkeel si yaay Amina. Euh, ca njëlbeenu weer ba. ñaareelu weer ba euh, siis ñëw na ngir ndokkeel si yaay Amina waaw moo nga gis ne bon weer wu ne weer wu ne weer wu ne am na kuy ñëw ca jëlbeenu weer wa ngir ngir ndokkeel si yaay Amina. ci ëmb gi nga xamante ni ëmb na ko yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam doguma oustaz xam nga ñoom dañuy yàgg ci ligne bi te ñoom moom émission bi 88 628 11 22 nee bismillah oustaz bismillah sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ba asalaamaaleykum wa rahmatullah maay salaam aleykum salaam Aliou ja ja papa ñu ngi ziar ja ja eh, mbaa yaa ngi am jàmm ñu ngi sant bu baax ja man day sëñ Malick moo wax mu ne day jàll émission bi dëgg la kay ja ma ne ko kon day dagg naa yitte yëpp nag dëgg dëgg seetaan. ndeysaan dëgg la jeex. <laughs> di nuyu mbokk yi nga fi nekkal yëpp. jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax jërëjëf jërëjëf. di wax ne émission bi moom émission bu am solo la. jërëjëf alhamdulilah. we weeru koor wi yëpp yéen lañ doon wétali ko. alhamdulilah. alhamdulilah moo tax bu ñu sañoon rek tabarakallah day continuer. Mm-hmm. alhamdulilah di rafetlu it eh, ni ngeen koy doxalee. jërëjëf alhamdulilah macha allah. di. rafetlu itam tabaarakallaahu ki ngeen indi ki ngeen indi laa koy tuddee xaw ma xaw ma firikat la waaye jàngalekat la daal. sëriñ Alioune Fall. <laughs> Alioune Fall daal Alioune Fall. Mhm. tabaarakallaahu domaine mu dugg rek. da nga cay nafaraat lu bëree bëree bëri. alhamdulilah. macha allah woo xam ne bii daf ko fekk ci. dafa jëf làmbatu waaye Alxuraan lu wér lay doon. dagg la lu wér lay wax wax nga dëgg de. Eh, di di la gërëm it bu baax nit ku nekk dafa am foo jógee. Mhm. nga gëm ne daal jolof jolof yëpp a ngi lay seetaan. ngay jërëjëf Dia. mouvement jeune Tidiane Alaaji Daawda maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu ne ma ñu ngi seetaan. Mhm. jërëjëf Dia. mouvement Dooleel Alioune Dia bi ñu ngi seetaan. Mhm, jërëjëf Dia. di rafetlu itam toujours ni émission bi demee ndax da fi indi ñoo xam ne ba ko dëgg bu ñu fi jàllee ni ñuy jàng ci. la Dia. tabaarakallaahu parce que gàmmu moom alxaaji daawuda ja boobu it nu nii nga ko indee mhm. te muy lu dëggu ndax mille neuf cent seize bi ko ko Seydi Hadji Malick di jox mhm. dafa waxoon ne ñaar mu jox naa leen gàmmu te doo du ma leen delloo si muy alxaaji daawuda mbëllëxe alaaji rawaan ko paal boobaak léegi nag ni nga ko waxee rek fa tabaarakallaahu sunu bàyyi laaj mat la nin moo ko yor ba soixante mhm. mu génne àddina Hadji saa yore ko Mm-hmm. waaye bi mu ba quatre-vingt-six nag mu xam ne jamono day dox mu teg ko suñu loxo yu di ko doxal. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah a ndono loola nag mooy lu rëy te kenn ëppale wu la ci waaye nag ko defar ga ndax mbokk moom da koy man a sagoo rek. wala mu dee jiital ba fu mu toog. dëgg la bëgg sax na sama mbokk nga waaye yow jamono booy génn ñëpp li bay yu duy def ci ñu ngi leen di déglu di leen ñaanal yàlla yàlla sàmm leen. amiin amiin. yàlla yàlla taxawu leen. amiin bi jaay Moustapha amiin. dégg naa sunu waa ji mu ne day mu ne day ànd ak yow mbëlëxe ne ko waaw eh, man kay man kay maa nga mbëlëxe dama leen di dama leen di andil ñëpp ñëppay ñëw. DTV ñëppay ñëw. allahu taala. ñëppay ñëw. soo seen jaay soo seen jaay li mooy jot moom itam fa tabaarakallahu rek am ñu ko wéttali si. le 30 incha allah ñëpp a waaw am naa sama benn set fekk naa ko fi far yeneen bi ñu ma fi invité. incha allah incha allah dinañ ñëw kon dañu ngi am mbégte bu baax. jërëjëf la gën a kontaan yàlla na la yàlla fay. jërëjëf jërëjëf yàlla na la yàlla fay. ci darajey Moustapha jërëjëf. ay ma nga noonu. képp kuy topp jotaay bi rek ñu ngi lay ziar 88 628 11 22 bu dee yaa ngi bitim réew it baa ngi noonu. waaye kenn du suñu waaja. wallaay ndeysaan hmm. Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. waaye Salih ndeysaan ki dugg suñu bàyyi suñu sëriñ sëriñ Alioune Dia. macha allah taxawaayam ci mbëllëxe ku ne xam nga ko fan yëpp yaa ngi may wax ni sànq yaa ngi koy seetaan. ku bëgg dëkk ba wallaay ci band annonce yi. Salih dafa tollu ne foo génn ci réew mi boo demoon boo demoon fu fa gën a sori ci àdduna bi boo ne jañu na la loo bokk ak euh, Serigne Alioune te it euh, nit moom njëriñ rek lañ koy doyee waaye mbëllëxee ga nga xamante ni ku bokk ak moom sagla bu rëy a rëy ndax ndax ndax tamit ku jël euh, santu maamam yóbbu ko fu ne ci adduna bi mhm. foo nuyoo ci àdduna bi ku ne la ja daan la loo bokk ak sëñ Alioune Dia waaw loolu nag képp ku bokk ak moom wala képp ku nekk njabootam di euh, taalibe euh, di euh, taalibe boo gisee group whatsapp bi mhm. ay jeunes yoo xamante ni ak njabootam lañ mhm. ay ay ay ay ay ay ay taalibeem lañ ñu def mouvement dooleel Serigne Alioune Dia am na kilifa gu ne ci ligne bi sax Baba Kunta Sidi Kunta ah. Sidi ñu ngi lay ziar bu baax kay salaamaaleykum. waaleykum salaam. Kunta Sidi. Ah, sëñ bi sëñ Saliou na ngeen def. ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax Kunta Sidi ñu ngi sant. Ah, ñu ngi leen siyaare bu baax. yàlla na yàlla nangu yàlla na yàlla nangu Kunta Sidi. ñu ngi suivre émission bi macha allah ci Alioune Fall moomu ak oustaz boobu mu fa nekkal. alhamdulilah. ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ci plateau bi ñu ngi ciy kontaan bu baax. jërëjëf alhamdulilah jërëjëf. Ah, i kontaan ci xam-xam bi nga xam ne moo fay balloo. alhamdulilah. li euh, leen ñaanal yàlla yàlla defal leen fat ak tawfiix. amiin yaa rabbi amiin. Euh, ñoom Mouhamed Sowdi ñoom Mouhamed Khalil ñoom Moustapha Aydara ñun ñëpp ñu ngi koy mm-hmm. toog di ko seetaan di ci biir lool. macha allah alhamdulilah ànd euh, na xam-xam ànd naa ak dal xel dina ko déglu dina ko taataan am na solo lool. alhamdulilah alhamdulilah. yal na leen yàlla jàppale. li ngeen moom jàngal ah, it su bëgg yegg yàlla yeggale. <laughs> yàlla am na ko yalla man na ko yàlla na ko yàlla def. amiin yaa rabbi amiin. yaay nabil karim sallallahu alayhi wa sallam. amiin ndeysaan amiin yaa rabbi. ñu ngi koy ñaanal bu baax fa tabarakallah kontaan nañ lool daal macha allah. jërëjëf ñoo la gën a kontaan jërëjëf. yal na yàlla taxawu télé bi bu baax a baax a baax a baax jërëjëf macha allah. ah jërëjëf jërëjëfati jërëjëf. jazakumullah xayran ah yow it yàlla na la yàlla fay jërëjëf moo la jàngal waay waay ah, formation laa jógee moom laa doon wax tànk muy Baba Kunta di Amir Saoudi Amir Khalil ñoo nekkoon ak man Dofane macha allah tey bu ñu demee bañ ne Alioune Fall jàngkat tey dañ ne doon nañ ko suñu waajur waaye tey formation bi ñoom la. yow it da ngaa yaru nga tey ñoom tamit ñoo tax ba ma jug en ñu encouragé ma ba ma génn nangoo jàng ci xam-xam. Mm-hmm. kon moom yàlla na yàlla barke. ñëwal ci li Karbala wax. Mm-hmm. ndax loolu lay yokk la Karbala wax na dëgg de. waaw incha allah fii moo gën a yomb fële. am nañ si euh, parce que. lu ma wax noonu dëgg la wala wala dëgg. lu am solo fii gënul dëgg la. Euh, mos nañu fay ñëw euh, benn émission ak xaadim mm-hmm. ci rajo bi waaw si rajo bi émission mm-hmm. bu doy waar mm-hmm. nit ñi dañu doon oote di wax ne waa nañu sa waa Saalum dimbale ñu indil ñu ko bàyyi ñu ko fii Dakar waaye chaque jour ma lay wax rat ah, waa Saalum bu leen ma mere de <laughs> waaye li may wax rat chaque jour lu jot yomb sëriñ Saalum addina dara jarul yàkkamti gis na mbir bu jotee jot na moo tax ñun suñ àddina lépp dañ koo jël rek teg ko ci loxo yàlla jayuma la de man li ma lay wax nii. Uh-huh. ñoom dinañ jugé ñoom ñii seetaan mm-hmm. yow da ngaa mën a way. waxuma lay waxu caaxaan de bis a ngi ñëw dinañ ko waxaat. macha allah da mën a way loolu. alhamdulilah billaahi wallaahi taala. sant yàlla dañuy jéem rek dañuy jéem rek yàlla ñu ko yàlla deflu. Euh, li am solo dañoo nekk ay ndaw. te ndaw ñun suñu vision. ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ambassadeur lañ. Mm-hmm. parce que mhm. ak képp kuy tagg yonent bi ambassadeur la mhm. ambassadeur nga si diine gi mhm. te loolu lañ gëm ne ñun ay ambassadeur lañ dëgg la lépp lépp loo xam ne diine soxla na ko man Aline Fall dama ko war a joxe sama dama see a joxe sama bakkan dëgg la dëgg la ndax waaye ambassadeur la ci kër gi ma nekk muy tariqatul xaadiriya dëgg la kon ñun chaque jour suñu vision foofu la kon nit na bu demee nekkee ambassadeur mbiram warul yàkkamti parce que ku yàkkamti yàqule tax ñu suñu àddina yàkkamti wuñ ko dara bisi gi bi bisi gi ñëw lépp insha allah dina ñëw te li ngeen di def it du caaxaan ndax xam ne moom yàllaa ko ñu kawe xam nga tàggkat yonente moom du caaxaan ñoom nii dafa am solo mhm. ndax lii solo gi mooy euh, gis nga yar gi ngay tudd sànq rek mooy euh, yonent bi salaay sallam moom mooy def loolu. dafay feeñ. ndax euh, wax mbas naa la ko wax daan ne alaa bi zikrillahi tatma innal qulub. wallaahi waaye nit buy euh, tudd turu yàlla. Mm-hmm. wala mu muy way yonent yàlla Muhammad salaay sallam ak daal rek la ñu war a mën a séentu ci moom. Mm-hmm. ak yar. Mm-hmm. ak i teggin. dimbali nga ma sax. ndax loolu laa la bëgg laaj sax kan moo war a tàggee yonent bi. yan meloka xaaral <coughs> euh, jël ko ba noppi 88 628 11 22 bisimilah. salaamaaleykum. wa ngi ziar bu baax nangu ziar. na ngeen def. ngi sant bu baax ngi sant. ah oh, Fall ngi koy nuyu bu baax allahumma amin amin ya rabbi amin. xam-xamam. amin ya rabbi amin. ca ca musal ko ci musibay àddina ak yu àllaaxira amin bi jaay Moustapha amin yaa bi euh, ñu ngi toog nag di jàkkaarlook moom di ko déglu mhm. di ci am mbégte bu wér alhamdulilah ndax Alioune Fall moom wax dëgg yàlla li muy wax leer na mhm. te neex naa dégg mhm. euh, Alioune Fall moomu nag comme ni mu ko waxee sàng euh, noonu rek la deme ci sunu biir la yaroo sunu biir la magge mhm. ci sunu biir la jànge mhm. ba xam lépp loo xamante war na koo xam mhm. ñi ngi nii toog di ko seetaan ñu nag ñoom ku ñuy wax Mohamed Aydara ak euh, Mohamed saudi ak euh, Papa Abdou Kunta bu li muy def nii nag wax dëgg yàlla ñoo ci gën a kontaan ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax yàlla na yàlla na mu ziar te di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd. amiin amiin li mu bëgg a wax ci yonent bi yàlla kàttanal ko dooleel ko ba man mën koo génne. amiin ma ci orma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ah, yàlla na yàlla nangu kontaan nañu bu baax kontaan nañu. waaw ah, ñoo leen gën a kontaan bu baax. kontaan nañu bu baax. ok marhaba. yàlla na la yàlla fay jërëjëf. Eh, waaye Karbala ñu nuyu ko bu baax ndeysaan sama waa ji lébu lébu menn moom it euh, su du raté émission bi. émission bëgg yonent bi la. waaw Saliou. Ah, Saliou xanaa xamoo ne Saliou. yaakaar naa ne mi ngi mi ngi lay nuyu. Ousmane. Euh, front de terre Ousmane sa xarit. Ousmane Ousmane pharmacie El Hadj Ibrahima Niass mi ngi lay nuyu. Ousmane ku baax. xel day fàttu léegi damay profité li ma dal dafa bari. damay ñibbi ruus ruus. ku ci mel ni ku ci mel ni Serigne mi ngi lay nuyu mi ngi seetaan émission bi. ñëpp a koy seetaan Sénégal moo tax ku ñëw sama xel rek man profité la solo gi moom bu ma ñibbee damay gaaj. <laughs> ndax xam nga solo gi dafa am ndax euh, solo gi weesuwul lii ndax sànq li Serigne Alioune Dia wax rek la mooy émission bi comme que ñëpp a koy seetaan mhm. war nañ fee dalal Sénégal dañoo bëgg yonent bi bon waroon war nañ fee dalal ñoo xam ne ay modèle lañu. comme sang bi toog. ñuy jàngale ndax tey fi jamono toll Saleh. yàqu na waaw euh, jot na euh, mës naa la ko wax fii. Mhm. ma ne la euh, sama Seydi Haj Maalik dafa waxoon wax bu am solo. Mhm. daan ne alaa yaa banii haada zamaani daawtukum. Mhm. li ihyaa'i diini. maanaam waaye waaye waaye doomi jamono woo naa leen. ngir ngeen dundal diine. waaye waaye nag bil ulumi. waa ci xam-xam nag daw leen wuyu si. bon nag ñu mel nii war nañ di leen dalal ci télé bi. Mhm. bu ko defee ñoom xale yi nga xamante ni féeteerul nañ. war a war a jëm ci yoonu seytaane war a jëm ci yoon woo xamante ni du yoon wu diina xalam. Mhm. du yoon wu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale. Mhm. ñu leen ni ubbil télé yi. di leen ubbil bërëb yi nga xamante ni mën nañ faa def ay festival. ngir di wane jàngal ngir di wane jàngale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sëñ Mohamed Kunte mi ngi ci ligne bi bisimilah Kunte Sidi. asalaamaaleykum wa waaleykum salaam ñu ngi ziar bu baax Kounta Sidi. Serigne Saliou Khoule ñu ngi lay ziar. di ziar Seydina Alioune Fall bu baax a baax. Euh, di ziara euh, waa Sénégal yëpp. jërëjëf jërëjëf. Euh, di am contentement wax dëgg yàlla ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy seetaan à travers Facebook bi. alhamdulilah. di ñaanal Alioune Fall suñu borom defal ko jàmm mais ko waa Maroc ñëpp ñu ngi koy suivre fa tabarakallah. alhamdulilah. ku ñu xam-xam yi nekk àll yombul waaye bàyyi nañu yitte yëpp ngir moom ndax ñu wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. def alhamdulilah. te du nu bëtt ci moom ndax yàgg na lu ko xam ci moom depuis mu nekk xale comme ni bi li wax ni kenn rek moo jar a sonnal kenn rek moom moo jar a ñu bàyyi ko xel mu yonent bi alayhi sallallahu alayhi wa sallam la waxkat ba waxoon ni man lam yatib bi taybata inda tayibin bihi taybatu taabat fa ayna tatibu allah nee na ku wutul sell ci yonent bi nga xamante ni madinatul munawara bi ñuy tudd leen sax ni suuf su sell la yonent bee tax mu sell nee na ku wutul sell ci bokk fàttee leen di ci waa kon ñu ngi rafetlu waat jëf yi di leen encouragé waat alhamdulilah yu xaadim fa tabarakallah ak di nuyu waa rajo ba yëpp ndeysaan tabarakallah ah di wax ni sori rek wax dëgg yàlla moom moo tax ñu gëj déggante waaye xel rek xalaat rek yëpp ci yéen ñu ngi leen di topp di nuyu aussi oustaz moomu ci plateau bi bu baax alaaji malik di ziar mhm. alaaji malik dia mhm. di ziar aussi communauté qadriye bi yëpp waaye di nuyu waa njaasaan xaasatan al xalifatul am li tariqati al qadriya ndeysaan ay kaddu yi ziar la woon ak kaddu yi nuyo ah jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di tàggu ba beneen yoon alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh étudiant étudiant Ndiassane yi nekk Maroc yëpp ñu ngi seen émission bi ndeysaan travers Facebook bi ndeysaan di Lamine Cissé mu ngi leen di yóbbante nuyo ñoom Mohamed Bouna Kontak ñëpp ñu ngi leen di nuyu tabarakallah yàlla na suñu borom taxawu leen te sàmm leen amiin yaa rabbi amiin gis nga ñii ñoom ñooy seen ay kilifa ñoom boo leen déggee rek xam ne ñii war ñu leen a jaaxal lii sant yàlla la xam lu tax ma islam bu contane gis ñi di oote ñep sama formation ci ñom la serigne mohammed mi ngay dégg Kunta Sidi serigne mustapha Mbacke dara mi ngay dégg mm-hmm. ñoma yar daba sa noxo mi ngi lay nuyu daba ndey sa it mi ngi top jotay bi wallahi wallahi mm-hmm. ñoma yar motax euh nañ ñaan rat yalla bu yàlla tas yaakar way la ci kanam rawuli gët yalla na nga guddu fan inshallah allah bu ñu yalla maye guddu fan incha allah liggéey bi ci kanam la. waaye ñu commencé guñ sax. waaye te soxna Fatima Kane. waaw mi ngi lay nuyu mi ngi koy ziare bu baax a baax a baax sànq nga posé question bu am solo. kii kan moo war a tagg yonent bi. Cheikh Sima Taa dafa am lu mu wax nee na. ndax dóorkat yaa ngi fépp. man taabat unsuruhu taabat fakaatu xaysuma xalla xalla marbaa jasadi. askan bu baax boo ca bokkee da nga yor jukko ju baax ba foo mën a dem ñu naw la ngir askan bu baax bi nga bokk. dëgg la dëgg de. tey dangay seetlu woykat yi ñoo bari waaye tàggat yi dañu ci bëriwut. yaa ngi may dégg. yow rek laay dégg bëri waaye tàggat woykat yi ñoo bëri ñoo bëri waaye tàggatu Seydina Muhammad dafa néew. lu tax. parce que li tax ñuy wax tagg yonent bi nekkul ci ñoom tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk euh, Serigne Saliou mbir moo xam ne du caaxaan ay fo man ni su ma déggee sañoon ndaanaan nga xaw ma nu star damay tiit mooy tàggatu yi ëpp nga star. Mm-hmm. boo xamee sa valeur yaay kan. tey bu gën a garaaw da ngay xool ñoo xam ne dañuy taxaw ne bi dogu mala nag ma baal. waaw euh, Mohamed Aydar mi ngi ci ligne bi nañ ko yóbbaale. Ah, xam nga day guddi te ñoom it dañuy yàgg ci ligne bi. 88 628 11 22 bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam ñu ngi ziar. salaamaaleykum aleykum salaam ay dara ñu ngi ziar bu baax ay ca bisimilah yal na yàlla nangu ziar def ko muy ziar da ñu ngi leen di nuyu yéen tamit di leen ziar bu baax a baax ñu ngi lay fay ay dara ah di kontaan ci émission bi bu baax a baax di nuyu alin Fall di ko ndokkeel di lu li nga xam ne mooy jataay boobu noonu alhamdulilah di rafetlu tamit li nga xam ne moom lay génne jëmale ko ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ah, Aline ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax Euh, lépp lu mu fu mu bëgg àgg rek ci tagg yonent bi yàlla na yàlla àggale ko fa te mi ngi ci yoon yi bu baax a baax ñu ngi koy suivre euh, di gis li muy génne di ko déglu bu baax a baax mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla xam-xam bu sell bu jaar yoon la macha allah mhm. bu nopp mën a dégg mhm. ñu ngi kontaan ci émission bi bu baax a baax mhm. ñu ngi nuyu ñoom su lay ñi fa nekk ak képp koo xam ne nekk nga ci plateau bi jërëjëf jërëjëf Aïdara Aïdara yi tamit euh, ñu ngi koy ah, ziar bu baax Aïdara Karara yal na yàlla guddal fanam si daraja Seydina Mouhamed maa waxoon ci benn qualité parce que euh, dañuy toll si jamono gi tàggatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañaa am responsabilité ci diine parce que tey ñooy taxaw nit ñi fu ne ñu bëri tey xam la ñuy xool mooy tàggatu yonent bi mbooloo ñëw ñëpp ñu ne waaw diw de mooy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ dem ca jàng ya yow nga dem ci jàngee ba jàngee jeex munoo jàngal nit ñi dara si yoon si Seydina Muhammad. Mhm. munoo jàngal nit ñi dara si diine war nga Seydina Muhammad. Mhm. alayhi salaatu wa salaam. sas war nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yaa tuddee sa bopp tàggkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon avant lenn ngay def parce que dafa am loo xam ne dañ koo jiital te loolu moo war mujje mooy succès. dëgg la mooy siiw. Mm-hmm. nit ki bo boo ba jël naa sama sama sama poki moy mm-hmm. tagg yonent bi la may njëkk a kii mooy xam kan moy yonent bi mais nit ki boko xamu noko noko noko noko noko ki noko royé noo koy wax nga deug da ngay tax ay takatu yonent sallallahu alayhi wasallam tay nga tok laaj leen si yonent bi duñ la ci wax dara. nga deug jël way jàmbur tay takatu takkatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay tok sa farata julli sa mënu lako wax. way jàmbur yi la jël. Ah? sa sunna julli luy sa sunna xamoko deug la de. mais dafa am ko xam référence de ci diiné tay ya wara tok seigne Saliou tey toog na bëgg a xam ko yonent bi mais boo toogee xamuloo ko yonent bi tag na tag man damaa taxaw di tagg Seydina Muhammad mahaadi mahabbatu jeex na yati min al umami hmm. kon jeex na xam nga lii leer na de ah, kon maanaam premier man muy sama bopp laa koy wax hmm. ak keneen ku man hmm. suñu premier mbir mooy na nañ nangoo gëstu ji xam-xam xam nañ ku yonent bi xam luy sa diine ba foo mën a taxaw nga défendre sa diine. am na ñoo xam ni dogguma la bu bâche bi feesul sax duñu nangoo jàng. duñ nangoo parce que xam luy problème. ma wax la tey addiya ba ñay joxe xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ñoom it duñ sawar a jàng. oustaz xadis nee na. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wax ju baax. Mhm. ak jëf ju baax farata la ci jullit. Mhm. wax ju baax. ak jëf ju baax. Mhm. farata la farata la ci jullit. man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha. waaye lu mu ci teg jàng wóor de yow mii lu mu ci teg. من البر وجه الله كريم ده هو من اراد بذلك خير الله لم يقبل عمله دغلا لب لوي ديف تا يالا تاخو نين لاي دو بو فكي علال جي مو تاخ نكاي ديف دي تاك يونتي بي علال جي دنا جيخ بو فكي درجه لا درجه دنا جيخ بو فكي مولو لا مولو بي دنا جيخ بو فكي يالا كسنات يالا دو مسا جيخ ناغي نيغي تا يوم القيامه سبير بامل alal du la fekk. mbooloo du la fekk. jëf rek dara ju du la fekk. jëf rek sa jëf rek moo la fay fekk kon préparer nga defar sa jëf ndax yàlla nee na anni laa udii'u amala aamilan min dhakarin aw unsaa. wa bimaa qaala man amila saalihan min dhakarin aw unsaa wa huwa al-mu'minu. fa ulaa'ika yadkhuluuna al-jannata yurzaquuna fiihaa bi ghayri hisaabin. maa ngi dégg ca way wa sax cheikh bu naan kuy tagg yonent bi waroo siis. waaw loolu di mer bul di gaaw a mer. bul di gaaw a mer eh, loo am dee ko joxe. maanaam. سيدنا محمد خم نكو يجي خيمم خنا خلاتو أه، أه، أه، باسكو يونت بي لينكو تگي ييب تي جيكو دو رافات لا انك لا لا خلوه عظيم يلا كو صلى الله عليه وسلم كون بو نكاي روي نانكو روي سي مبغيل لي خم نوي ديف وا لما متي موي وا مام شيخ داف ما وخ ليغي نمال تي ديس باريتو لول ما متي تمان تمان بور مان كوماسي غوني صاح خمغا جوتاي بي نيه وقتان مي نيه لول ما متي نينا ما nee na ma li ci des bareetul Karba looloo ma métti. nee ma dix minutes sax deseetul. waaw dafa neex man émission bi xanaa xamoo ne dafa nekk loo xam te ni même boo loo gëmmentu gëmmentu sax doo nelaw. bu ñu tax jaay boo yi tàmbali ngay yeew yónent bi day caaxaan. Saliou lii rek ay dëgg lii rek ay dëgg. xanaa bu la nee yóor ci sa bàmmeel. Sidi va à l'école sax du la fa jële <laughs> rek mooy dëgg. ah dëgg jaamu yàlla. bu ñu takkee say loxo takk say tànk. amul Sidi va à l'école de. doomu aadama yi tuuti. Mhm. maanaam ñi nga xam ne ñaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ko bàyyi xel bu ma lay invité waat du ma indi waxtaan kat <laughs> jaru ko eh, eh, jàmbaar la wallaay ah, jàmbaar eh, oustaz la may dimbalewaat nit ñi bu Diop ngay gis waaye déggoo ma ba ñuy man kay duma man dinaa def bisu yonent bi di caaxaan ah, guddi yonent bi guddi àjjuma Mariane mi ngi lay nuyu ah, soxna Bamba la moom it day topp jotaay bi saa su ne mi ngi lay nuyu bu baax sëñ am Diop Touba TV mi ngi lay nuyu la may dimbale nit ñi mm-hmm. mooy tey ñëpp ngi ne dañaa bëgg yonent bi waaye nañ jéem a roy yonent bi waaye tey nga ne bëgg si tànt yi mm-hmm. ustaas yi boo moy tut ëllëg yowmal xiyam ca yardal leen laal kii de bokk ci ndax kii moom jàngkat yi ëllëg yowmal xiyam boo moy tut yor parce que am lay problème tey nga ñëw si tànt soxna yi mm-hmm. macha allah yal na yàlla fay munaa jaat yi ah ñooy munaa jaat yaa ngi dégg te tey macha allah da ngay si tànt maanaam ñu joxe xaalis macha si bëgg yonent bi mm-hmm. mais nañ leen dimbale Mhm. xam nga lañ leen dimbale mhm. mooy nañ leen wax lu yonti bëgg ak li yàlla bëgg mhm. buñ ko deful kon war nañ leen parce que tey nga ñëw si tànt meesu euh. tey yàlla bëggul rasulullaay bëggul nga xeesal yàlla bëggul rasulullaay bëggul est ce que xam na jigéen lan moo war a feeñ si bopp si moom sa xar kanam ak sa tënk loxo lu génn ci moom la xaraam na waaye léegi est ce que tey euh, euh, ndax tànt yi tay li ñang kay taxaw diko wax ci tànk ya mhm. léegi tay nag fu ni instant bi fekke alal gi alal gu ñu lay jox mo tax nga jakkaro soxna ci bu lay jox baatare nga ne ko waaw yaa ko yor tay yow xamna soxna ci limi def ma sha allah yalla <laughs> gërëmu ko ni war nga yalla aduna lañu top rek tay aduna ah, fay jeex kon nañ del war xel nag dëgg la man dama bañ kuy salté li nga xamne moy mhm. tag tagg yonent bi mhm. alayhi salatu wasalaam nañ del war deug la xali ci yalla ni ngi koy defé ni nañ delluwaat xel yi ci bëgg ci Seydina Muhammad suñu ci yaro ñu lenn lu bëgg yalla bëgg sëriñ alaaji sëñ touba tag ko yonent bi al Mustafa sallallahu alayhi

alaaji Maalik tàggkatu yonent ko may mooy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sellal ko te moom indi ci àdduna lil Moustapha nawaytu maayu jabi sunnatul waraawi ni ahmad moo ko wax nag waxtu bi jeex na tàkk léegi da ngay tàggoo ñu jox ko Karbala tàggoo yow nga tàggoo doog ñu wayee ñu tëj ndeysaan macha allah yaay la 30 xam naa fa ngay tàmbali ak bëgg dëkk mbëllëxee moom la la fata go bi tambale DTV Mohamed mi day ñew Mohamed ñaanalal mako sama moy cheikh mi est ce que duma ko fol mais oui ñeme mo moy rendez-vous dina bien man boy régie soppeku nañ ñom ñepp légui ah ñepp mbala xel wo nouru ah mais mbala soppeku nañ babakar do may laaj bakay mbay soppeku ginaaw ciowon ginaaw magal mam cheikh da sa jup yi cheikh ah, la gëna russi mbala xel rek mbala xel rek mo tan yow bu bu bu soobé yalla 30 décembre mhm. ñi ngi ci serigne bang ci invité gaay yépp tok inshallah ñi ngi gërëm ñepp di leen ziar karbay ci mu gaaw waxtu bi jeex na tak xoj nañu doyuluma mom xamna Habib li mu indi woon sax bari na. lool waaye gul de. non xam man man mii di wax ak yow doyalu ma. ndax de fii ma toog rek yow tàngoor balaa ma laa gaawal. <laughs> doo ñëwaat de dinaa la dàq jarul de. <laughs> sa dàq maa ngi koy gis nii xaw ma fan yi xaw ma danga may liggéey mais dinaa la dàq dinaa la dàq de. ndeysaan. jaay dinaa la dàq. <laughs> tàngoor ma di nga ma rey di nga rey looloo rey sëñ Ablaye. na kenn moom los jaay taal ku baax la. sëñ waaw los ndeysaan. Mm. loolooy rey sëñ Ablaye sëñ Ablaye looloo koy rey ndeysaan mm. nee na nee na dama lay dàq bi nee na loolu la mënul muñ <laughs> sëñ Ablaye Diop ma ca parcelle loolu loolu la mënul muñ Saliou di ñaanalaat ñëpp jàmm waaw di ñaanalaat ñëpp jàmm di wax naan gis nga man xamoo ni sëñ Aliou bii nii man dama ko doon déglu rek ci ay ay comme ay nga envoyé ma son bi rek laa dinaa ko indi Dakar billaahi maa bu baax a baax ndaanaan la moom ndaanaan la ëpp na pour gis nga Saliou. lii rek mooy dëgg. da kay lii rek mooy dëgg. bërëb ba nan ko bàyyi bu dee lii mooy dëgg. liste bi. bisimilah macha allah euh, comme ndeysaan waxtu bi kii lañu pour ñu présenter la ñi nga xam ne rek ñoom lañ àndal muy Souleymane Diop. ku baax a ngi nii xamee naa ko ci Cheikh bu Diop. waaw sunu ménagère la. ku baax muy Souleymane Diop. ndeysaan dëkk liggéey mën na faan ak ñi nga xam ne mooy El Hadj Saoudi suñu mm. président. d'organisation ak Boubacar Camara moom laa doon wax sànq macha allah tamit di. jàmbaar moom tamit macha allah ku baax la yonent bi rek lay wër. ñi may tëggal macha allah xale yaa ngi nii Nourou Mouhamad. kawalam moom macha allah yow sa tafale yi gisuma ci ay cóol ak yooyu de wala yéen doo leen rax moo tax Cheikh bu Diop nee na ma loolu amul ci këram moom non émission bu guddoon nga dégg leneen euh, Pape Sène a ngi nii macha allah ak euh, kii borom bi mooy mooy Pape sama cant yi dinaa ko ak euh, notre Paate ak macha Issa moom tamit ndeysaan ba Kaffrine ba Fatick moom mooy kii Issa ngi nii Issa yi waa Nuuru Nabi bu bu Fatick yëpp naa ko la muy ki nga xam ne mooy El Hadj Ndaw macha allah ñëpp Nuuru ak xanaa yi nga xam ne ñoom laa àndal muy euh, Babacar mu ngi nii ak Pape Sarr macha allah di tàggkati Seydina Mouhamed mooy mm-hmm. sama xarit mm-hmm. ak sama rakk Idi ñu bokk ndey ak baay euh, tey sax am na kenn ko waroon ñëw muy Astou Fall ñoo bokk ndey ak baay mais bu ñëwoon nga daw booy ñëwaat da nga koy indi incha allah man doyelu de du ma la ko nëbb de <laughs> waaw ah waaw waaw tey loo ko may ah moom ngay fi mu ne yëpp mën ngay bàpp waa jeex na yow dinaa yaa ngi tàggoo woon. waaye nag tamit euh, gërëm tamit xam ne moom moo mhm. ñu dalal bu jógee Kaolack. dañoo sonn muy ndey tuuti sama. Kaolack ba na man kontaan sama xol sedd na guy ba ñu ngi koy gërëm ko sant di ko ñaanal yal na yàlla barkeel. yàlla nañ la dégg fépp ci àdduna. amiin te daraja Seydina Muhammad di gërëm tamit euh, sama sama bàjjen yeeg ñëpp waaye du nuyu particulièrement soxna Maguette Kounta bu soxna bu bu Cheikh bi Cheikh Ibrahima bu Cheikh Zénoïdi di ko gërëm di ko sant bëgg na ma jàppale na ma ak soxna Maguette Kounta bu Serigne Abdou Bekkaay ñu ngi leen nuyu di leen ziar waaye Maodo mi ngi régi xarit ba dama ko fàtte woon ak Kounta yëpp damay bañ ku lim juum waaye sama soppe yëpp am Cheikh damay bañ ko ma mere nuyu naa leen sant naa leen yal yàlla barke leen nañ xam ne képp ku ma tudd rek wallahi sama xol bi tudd na dëgg la nuyu naa waa Ndofane bawuma kenn mënoo tudd ñëpp sax mënoo tudd ñëpp waa Nour Mouhamad Bunaama coordinateur ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñi nga xam ne ñoom laa àndal. Moustapha Régis nee na kontaan na ci yow. sama xarit <laughs> maam Cheikh yàlla na nga gudd fan. ñu comprendre rek. Moustapha chaque jour ma fàtte ko te mooy borom guddi gi. sëñ naa moom it du ay caaxaan. Ah. ak suñu mag Zal Fall nekk hmm. sundoo Fall moo tamit ko sonn suñu la. macha allah ñu koy gërëm ak ñoom dañuy kontaan waxtu bi jotee ndeysaan. Ah. lii nag moom single bi bees la. boo xam ne single bi tëjël single bi. seexu jaylaane sultaani lawliyaa mam jayli amoo def leen ni ñu màgg Seex Abdu Xaadir Jaylaani it